وسيلة إلى خير ربي ذكره قد ما لهوي وفي كريم ويد ودعتا به لسوانا ما لسو الجور بالرعي ولي نبي للبرايا رسول مان به لسوانا ساخ ذا ظلم والسدوي ودادي لربي والمقفى ويزبي ومن أب والله لي كان بالعفو وسرت بباق سرت عبدا لو بي قديما لخير الخلق بالمكس والسفي أروم ردا من كل يدار يقلو لأساب من قلبي هواء ويملهو إلى إردان سعبي نبي قائدا له شرورا متي ينطق بمتي متره عيبت يدارين سعب النفادهم إلهي لخير كل من ليس يبره أبى الله إلا كون نو سيدا بهم وغد وقل كفار والكل جسوب أسود على الأعداء مسابيح في دجا وكل سجاع سيسي الكبر يسوب أسود متي يغسد لهم سو تجرعي يبر جبان يبكي ويما تجرب أيا قادم المختار لا تنسى سبه فمن ينسم الفلمة مت مقته أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخاران به أبو عاصي الفاروق سرواء نادر به تدين المصطفى إذ يزازيو أبي دايما دعب نعفان سلايا لو نور ثم نور نهم المبوي أبو سبتي المختار woowu am naami aliyun ala faqatira nihmal mujarrab adaba rasulillahi inni xadimuhu muhibban lakum fillahi wallahu yaklawo adaba rasulillahi inni xadimuhu muhibban lakum fillahi wallahu yaklawo naan yow bulaay nimal mu'minu عن الميل يا مغتيرا والحق أخمنا نبست الله عبدا نبست الله عبدا لمولاي وحده لمولاي وحده قديما لمن اندر كي كلت السنو نسفت بنا عن ميلي بالحق ما دعنا لفرد على قلخ ونا عنه ديدنو nawaytu dawaama zikri wa shukri xaadiman li xayril wara nixmal asirun musayyano nabiyun rasulun xayru abdan wa sayyidin xalilun habibun mis loo laysa yuxlano najiyun xaribun zakirun wa huwa shakirun jawaadun karimun bil makarimi yuxsino naqiyun taqiyun saalihun wa huwa musihun bashirun liman lillahi biladi yuxsinu nabiyun rosanun azimun mubayyanu huwa almustawa almuxtaaru wa huwa almuayyanu nubuutu qablal baraaya qadin jalat loo sabqu hiinal jaddu fii tiini yuxsinu najiidun majiidun mu سر ملوتا معلا ومبدال ومعلن ومعلن ملكت برب المخ جل الموج واليمين بمده الذي أمسى أذى الفلك كالخمير مرامي وعاجاتي لربي توجهت بعمل وشكر وولي كان بسكلي مرادي كوني عبد دربي خديم ما أخاتب بسكري والحب ذازمي مذاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكن جلت عن الشر والنزم مقامات خير الخلق عن خير ربه مخيبة فلتقرأ عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه سلام من له الأمر كالحكم محمد المعروف ماح ومانع وبالعد معزوز مسون عن الوسم مجيب مجاب مرتدى ملك الهدى مبيع ومبعوث إلى الغرب والعجم مديع جلانا دجنا محلل مليء ومصوم من الناس والوهم مدينة علم تجن ملة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم ما لا واني بالنبي كل فاسدي وسرت بي عبدا خديما بلا خميم من الله رب العرس أبقي صلاته بتسليمي للمستوى مخجل اليمين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 ni ma lii ni ma lii boole naa ko ci joxaaleel ma ko seex bi seexul asaar seexul asaar sa xarit gis nga tabaarakallaahu lii lépp seexal saan ne tey tey ne bu nu mënoon la ca la ca place yaag la ca magasin yëpp dana ko jënd indil la ko ngir sa jukk lii lii daa fekkoon nga leb la ko lii daa fekk nga jiitu ko ci sunu jëmm waaye tey boo yëgle woon sa anniversaire bi yaakaar naa ni cadeau yi du mën a dugg ci biir kër gi ndax fenn fu ci ne sa teraanga dem na fa dem na fi Serigne Saliou gël tappe ndigal yónnee yëkk woo xam ne ni mu toll daan ni Cheikh Alassane bisub rasulillahi amul lu dul gam bis boobu nag faaw ma yeewu ci yëkk yi yot ko ngir ngir mu dugal ko ci gàmmu rasulillahi waaye sa jikko la tey imam indi cadeau Alhaji Ndiasse indi kado jawriñ indi kado Alhaji Assane indi kado man Mansour indi kado tey ñëpp seexal bu ma ñëpp kenn ku ci ne indi kado ngir sa jukko nee ñu ngi ñaan nga yàgg fi nee ñu ngi ñaan nga wér nee bëgg na nga jóge fi léegi de nee na nga dund ñaar téeméeri at ak ñeent fukk ak juróom-ñaar nee daal seexal saan jàmm ji ngay dox ci réew mi nga xam ne fenn fu ci ne dugg nga fi ci këru diine yi ngir jàmm ngay ambassadeur de la paix du Sénégal loolu réew mépp xam nañ ko yow jàmm rek la ñor xoolal tey sunu mbokki sunu mbokki naar yi ñëpp ñëw nañu waaye loolu seexal bu naa moom mooy mooy def présentation boobu waaye ñu xam ne nag xam ngeen ni cheikh bi daa war a ñu koy bari na waaye ñu lay wax ni ñu lay wax ni happy birthday to you joyeux anniversaire Joyeux anniversaire joyeux anniversaire Seexal Seex bi dundal cent onze ans Seex bi dundal cent onze guddi gàmmu tey loo ñaan yàlla def ko dëgg la tey ñi fi nekk ñi fi nekk am nañ tawféex alaaji Moodu guddi gàmmu nee na la Rasulullah fii màggalee guddi gàmmu ki bari na waaye fii ci la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yow loo am yonent bi la ku lay nax nax yonent bi boo génnee bu ñëwee yonent bi nga génne millions yi jor ko nit ñi ndax yonent bi sallallahu alayhi nga bëgg nag kër gi nii Cheikh Alassane doo dégg mukk lu mu wax xam nga looy dégg ah. lam jëf yow dañ lay ñaanal yàlla bàyyi la fi waaye nag happy birthday to you joyeux anniversaire cadeau yi bari na waaye kaamil bi nga gën a bëgg tee kado yi bari na téewu ci benn waaye léegi gën a bëgg muy alxaanu karim moom nga téye borom saatu ala nabi yi borom saatu tasbih yi tubaarkàlla nga ne mont bi ci la bokk ak yonent bi ci anniversaire waaye waaye alaaji Modou sëñ Malick Seck xam naa jàng na waaye dina jàngat sëñ Malick mu baax mi nga xam ne koo xam moom moom moom day day ñaan waaw asalaamaaleykum ñu ngi koy xaar fi mu war a dem bari na ku baax ñoo ngi lay ziar bu baax moo Modou Mbuub mii moo ma woo fii fekk na xam naa la dégg sa tur ci senegal ñun ci diina rek la ñuy dox defe naa ni bëgg Seyduna Muhammad doy na mbaax jës bu bi leen ñu doon jàng Cheikhul Khadim li mu yonent bi xam nañ ko bi ma waxee sa bëgg ci yonent bi moo tax ma bàyyi yëpp ñëw waaye bi guddi gàmm kenn mënu maa génn yóbbu ma fenn ndax fu juróom benn programme ñu ngi may xaar 9h fekk na ma fii 9h dama jul timis génn sama kër Modou Mbuub mii nag nekk na koo xam ni ci Sénégal ñëpp ko ñëpp ko bëgg may ma tuuti rek nit ku yiw la ku baax ku xam lu baax. bi ma wooyee ne su ma neexoon ni ko guddi gàmmu nit mënuma génne sama kër ndax programme yi may jàng vingt ans ci ginnaaw mi ngi nekk sama loxo ma di ko jàng kon nag du ma xëy benn nit di ma déranger mais bi ma waxee sa tur mu jaral ma mu bàyyi yëpp kon bëgg yonent bi moom rek moo am solo yonent bi moo nu def nii ñu mel. sëñ Abdou Karim Mbacke sama sëriñ ba dafa ni ma sëriñ Touba dafay dugg ci askan seet ki ko fa gënal yëkkati ko xasidaam yi nga xasida yi du ko jaaxaane Seydina Muhammad la ci tagg kon noo ñu ngi ñaan yàlla defal la gudd fan barke jasbul xulub bi barke sa soppe ba Seydina Muhammad may sàkku nag su ma tegee micro bi nga ñaanal ma ndax boobu ba tey ñu ngi may woo te bëgguma woon dem te gisuma na maa ngi ñaan yàlla guddal sa fan. def ak dérangement di ñëw ba këram Touba même boo ñëw da nga yablee délégation yónnee ay nag yónnee ceeb yónnee diwlin indi ko ñoom muudu mbub ñi indi ko bu màggal gi jotee nga defaat délégation mu ñëw ca kër Soxna Astou mu Seex Murtala góor yàlla te loo jige jaara Mamour jaara gën laa jige jaara moom i doomi jaara Cheikh Mourtala ko jur Cheikh Mourtala sëñ Bamba xaadim borom jumaa ji Mamadou soxna bu sama ci baar ji mu jawoote appui donga sudub soorool gën jumaa jumaa ju mag ji màggal gu mag gi ñu lay defal lii tey may géwalu soxna Astu Mbàkke mu sëñ Mourtala nga bëgg ma fonk ma kon dinaa seede ci soxna Astu Mbàkke Mourtala ban xam ni soxna Astu ab géwalam teew na ndax da ngay kenn ci moom yaag soxna Astu ajju màkkub gaaw la bi sox fi da koo bëgg soxna Astu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla teraanga yu loo fa indi rek wax na ma ko yàlla na yàlla guddal sa fan bég nañ ci yow lool ndax bëgg nga bëgg ma Mohamed tey moo tax ma Mohamed defal la ci bisam sa anniversaire bëgg koo gis yëg a koy fay feebaru bëggeel yëg a doctoram nu may def duy joo gis nam la defa tax Cheikh Alassane askan noo gis yàlla da ca génn capitaine ku maa ji sonn sa waskan yaay seen capitaine yàlla yàlla guddal fan wi jërëjëf. la kàddu ngërëm la. kàddu feeñal cofeel ak suñu sofeel ci suñu sofeel ci. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sof ko ci bëggug Cheikh Alassane Sène liñ ko bëgg a waxtu mënuñu ko wax Modou Mbuub mi ñu ko koy waxal waaye nag lim bëgg ci yonent bi te mënu koo wax ñun ñoo ko koy waxal ku sopp rasulullahi la bëgg yonent bi ba jeex ci tàkk te yonent bi daf ne woon maqtuli taxubbi bi qalbi ahadin illaa wa harrama allahu jasadahu min an naar yonent bee ko wax xol bu bëgg yonent bi yaram wa ëmb xol ba araam na safara kon cheikh bi ñëpp xam nañ ne nitu aljanna la cheikh bi du ànd ak ku bëggul yonent bi du ànd ak ku bëggul yonent bi soo bëggul yonent bi di ànd ak moom dana la soppi ba nga bëgg yonent bi te moo ne yàlla lu bind yonent be ko ci gënal jëlal sa big ak kaye bindal laa ilaha illallah boo ko wàññee fukki xaraf ak ñaar la muhammadu rasulullah yi fukki xaraf ak ñaar la aboubacar siddiq fukki xaraf ak ñaar la omar ibnul xataab fukki xaraf ak ñaar la ousmane bunu affan fukki xaraf ak ñaar la ali ibnu abi taalib fukki xaraf ak ñaar la cheikh ahmad tidiane fukki xaraf ak ñaar la cheikh umarul fuutiyu fukki xaraf ak ñaar la cheikh alhaaji malik fukki xaraf ak ñaar la cheikh ahmadou bamba mbàkke fukki xaraf ak ñaar la cheikh alsan seen ñëw di fukki xaraf ak ñaar wàññil boo bindee a cheikh alhasan seen boo wàññee fukki xaraf ak ñaar la la jox bu la ko joxul ñëwal ne ma da ngay fenn kon ku bëggul yonent bi du la raafaale ci mbiram ku bëgg yonent bi yonent bi soppi la kon cheikh bi ñi ngi lay ndokkeel ci bisab tay bi bis bii mooy bis bi iblis binni woon binni mooy onk wa anna ranna la aynul xabbu yaxduruhu junuuduhu wa huwa radidun min assadami bis bii ci la iblis onk woon bis bi iblis onk ngir njàqareem ci lislaam bis boobu ku dib jullit war nga koo feete bis bii ci la béy dajeeg till saafonteeg moom ku ne wan sa morom gannaaw jàmm am ci àll bi juddub yonente bee ko waral bis bii ci la gaynde dajeeg béy fu woon ko raay ko wan ko gannaaw dem yoonam bis bi géej gi amul kenn ku fi lekk sa moroom kon bu Cheikh Alsaan bisam tombé ak bisu yonent bi li muy woote ci moom dëgg la dégg naa barki démb sëñ Malick nee na noo bëgg mel boo ko wootee ci yàlla yàlla melal la noona waaye loo koy woote te du dëgg yàlla toroxal la ca loola kon cheikh bi yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla may la wér na yàlla may la wér ay gan yoo xam ne sëñ xuma di kenn ci Modou mbub moo leen fi indi ñu nekk ay investisseurs yu ñëw en prospection au Sénégal euh, donc nekk ay nit yoo xam ne jot naa waxtaan ak ñoom je voudrais donc saisir cette occasion à travers euh, l'occasion qui m'est offerte pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire que la fondation Salallahu Ala Muhammad à travers ma personne vous dit toute sa gratitude pour lui avoir donné l'occasion de contribuer à travers votre présence au succès sublime de cette nuit à qui l'humanité doit tout. N'est-ce pas Je voudrais tout simplement vous dire que le chef, c'est que vous êtes des investisseurs, vous êtes en prospection, et je voudrais vous dire que vos démarches, ces problématiques sont au cœur de ces, pré de préoccupations. On aura l'occasion d'approfondir la réflexion après en privé. Mais cette nuit, vous nous permettrez tout simplement de parler uniquement du prophète, puisque c'est sa nuit. Donc nous avons un bu reuy di wax ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant président mu ngi toog tey ak responsable yi nga xam ne son assistant personnel son conseil spécial Ibrahima Diassé mu ngi fi jëwriñ ale Ndaw mu ngi fi imam Sall Assane Diallo euh, ñi muy toogal chaque jour Ablaye Mbuub ñoom ñëpp ñu ngi fi bëgguma lim su ma limee damay juum Modou Mbuub donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp ci seen présence di wax ne sànq benn nit envoyé na ma message na ma chef bi su góorgóorloo na ko leer ne mën na am lu ne comme dem na ba am date anniversaire bu tombé guddi Seydina Mouhamed te loolu du ñëpp koy am ñu ngi la ciy profité dugg ci porox ndoll boobu di la souhaiter joyeux anniversaire di ñaan yàlla may ñu yàgg ko teewee at yu bëri. tajan min la tun lana jari un wa mun jin min zunubin wa min zulmi ma laawani bi nabi kulla fasidi wasirtu bi abdan xadiman bila xami min allahi rabbil arsi aqi salaato